loolu kon incha allah dañuy bàyyi Cheikh Ousmane su paree mu jëral ñu la nga xamee ni ni moom mooy sunu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne allazina yatarabbasuuna bikum mooy ñooñu nga xam ne ñi ngi fuglu ñel leen ay toog di xaar ñel leen fa in kaana lakum fathum min allah su leen ñeelee ak ubbeegu bawoo ca yàlla qaalu alam nakun ma'akum ñu ne waaw ndax ñun nekkuñu woon ànd ak yéen wa in kaana lil kaafirina nasib su dee daañeel yéefiri nag ab cër qaalu alam nastahwiz aleykum ñu ne waaw ndax ñun nekkuñu woon di leen teg suñu loxo ci yéen di leen aar wa namnaakum min al muminin di leen fexe ba fegal leen la nga xam ne mooy ay julit ña muccal leen ca julit ña fallahu yaxkuma baynakum yowma alqiyama yàlla day mooy atte seen diggante yowm alqiyaama walan yaj'ala allahu lilkafirina ala almuminina sabila te yàlla day du def mukk ñel yéeféer yi ci kaw julit ñi yoon boo xam ne nii da leen di dañ leen dañuy faagagal julit ñi inna almunafiqina yuxaadi'uuna allah naafiq yi day ña ngay nekk di naxanteeg yàlla wa huwa xaadi'uhum yàlla it moom ma nga nekk di leen nax wa ida qaamu ila salaa ñoom day waxtu wuñ taxawee ci julli qa qaamu kusaala dañuy taxaw doon ñu tayel yuraa'uuna annaas di ngistalu nit ñi rek wala yazkuruuna allaha illa qalila te duñu tudd yàlla lu dul lu néew muzabzabiina bayna zalik di déngi déngi diggante loolu laa ilaha haula ànduñu ak ñee muy julit ñi wala ilaha ula ànduñu it ak ñii nga xam ne ñooy yéefér yi wa man yudlilillah ku yàlla sànk nag falan tajida lahu sabila doo ko amal benn yoon mi ngi noonu bu mën a gindee kooti bokk suñu boroom day wax rek ci ñi nga xam ne ñoo gën a nekk noonu julit ñi ba suñu boroom sax tudd leen ne humul adu ñoom ñooy dëggër gi noon yi ca mooy naafiq yi yéefér moom daa taxaw fii na gëwuma jullitit ay mbiram leer na gëm na waaye naafiq mooy yéefér boo xam ne gëmul waaye intérêt yëm bëgg wala lam ragal ñu jalgati ko tax mu ñëw ne moog jullit ña ànd naafiq yooyu nekkoon nag yonent bi ak sahabaam gis nañ borom bi nee na dañu daan toog di leen xaar heure bu jihad amee ñu daa di laqatu ba bañ a bokk ci jihad ba su yàlla indee ndimbalam ci julit ñi bañ am ci ay ngañaay te it mbokk jàppal baat boobu bu baax mooy fathum min allah doomu aadama lu mu am ci xéewal yàlla ko ko ubbil ma yaftahi llahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min baad suñ bilal cam mi day wax góoram gu ko doon wax naan xuuma jàmbaar de ku yàlla dimbali laa xam am déet wala fi sax dañ naan ah diw de yàlla ubbil na ko ay xéewal naam loolu mbokk ci yàlla lay jóge xéewal ci yàlla lay jóge kon yow yonent bi ak ci sahaba bu ngeen demee xeex ngeen gañi fathu min allah xéewal la ko bawoo ci yàlla su ko defee ñu ne waaw ndax ñun nekk ñun ak yéen sédd leen ñu suñu wàlluwaay amma nag bu dee yéefiir yi ñoo am ab cër gis nga loolu yàlla tudd ko fatu yàlla nga ko tudde nasib ndax lu leen yàlla di nattoo la wala yaxsabanna alladina kafaru annama numidduhum am yaxsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yashurun suñu borom mu ne yéefiir yi ndax li may leen di xëpp ci alal di yokk seen njaboot dañoo jàpp ne dama leen di jëkkantil jiite leen ci ñoom aw yiw déedéet loolu nattu la ngiree ñu mën a dollee ko bakkaar li yazdaadu isma dollee ko bakkaar waaye su boobaa ñu ne alam nastahwiz aleykum mooy li borom na istahwaz alayhim shaytan mooy ñun ñu leen téewoon aar leen ba loolee di leen xamal xabaar yey jóge ci julit ña ba wa namnaakum bépp ay bu naroon a jëm ci yéen du jóge ci julit ñi ñun ñoo leen ci doon avertir te it mbokk noonu lañ meloon mooy plan bu yonent bi alayhi salaam xëy tëral balaa ngoon yegg na ca yéeféer ya lu mu fanaane tëral balaa fajar yegg na ci yéeféer ya looloo tax ba rasul sallallahu alayhi wasallam su daan dem guerre da koy laqe beneen masalan su doon bëgg a attaquer ji Saint-Louis yàlla na yàlla wàcc Saint-Louis jàmm danaan danaan danaan julit ñi dañuy préparer wu dem Kaolack dañuy préparer wu dem Kaolack ñëpp jàpp Kaolack lañ jëm suñ demee ba jam ñaajo nag mu doog a dévier armée bi lu waral loolu ndax yéeféer yi naafiq yi yàkkamti wuñu lu dul xam ne yonente baa ngi jóg ñu daal di gaaw dem ca seen mbokk yi yéeféer xabaar leen xabaar yonente bi donte ne ne lu mel ni masa dal benn sahaba bu baax te yit mbokk léeg-léeg ab julit mandargam naafiq nekk ci moom su ko defee duñu jàpp ne nafiq la waaye moomin ne xeex ak boppam ba moytu ko bokk na ci loolu yonent bi alayhi salaam wax ne isa hadasa kazaba fuy wax day fen rek moo ko fenkat mandarga nafiq la yéen ñëpp xam ngeen koo xam ne nii fen moo ëpp tey waxam yàlla nañu yàlla jéggal nag rawatina suñu mbokk ouvrier yi mi ngi noonu yàlla boole ne leen métier bu noble waaye quatre-vingt-dix pour cent ci yéen bokk na lu leen lu leen jafe sàmm seen kaddu mi ngi noonu bokk na ci la yonente bi alei salaam wax mooy heure buñ ko wóoloo mu wor zawtu bi ne xaan gis nga mi ngi noonu gannaaw ba heure bu diggee wor loolu ci am mandarga nafiq la bokkoon na ci loolu kóolute googu yonente bi bàyyi woon ak sahabaam ne leen nañu leen dañuy dem attaque ji màkka fekk waa màkka jalgati nañ mu ne nag yàlla suñu xabaar bi yàlla na ko nëbb waa màkka yàlla na ko nëbb waa màkka mu am kenn ci sahaaba yi fekk woon badr di xaatib ibn abi baltata comme moom daa amoon desuta njabootam nekk makka moom fa alalam mu daa di ne ah man day naa avertir waa makka ngire waa makka man maa sàmmal sama njaboot googe yàlla mii xam kumpa daa di xabaar xamal xabaar ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk mi ngi ko jox benn jigéen bu doon dem makka yonente bi sant ali ak miqdar ñu dem dabi ko bañ ko debee ci gàttal ba génn lettre bi indi ko ñu fekk ñu ngi ci bind mi ngi jóge ci xaatib ibn abi baltata et yéen waa makka def leen attention yonent bi ak sahabaam ñu ngi ñëw ci yéen omar ibnul xataab bot ci jaaseem yow mi yàlla yónni bàyyil ma rey ko kii nafiq pire ngi nii yonent bi na ko déedéet du nafiq ndax kii fekk woon na badr te mbokk ñi fekk woon xare badr kenn du ci nafiq kon koy julit bu sàggan la rek daa dina ko xaatib lu la xeer ci lii mu ne ko wallahi gëm naa yàlla gëm naa yonent yàlla xanaa càggante rek bëgg rek waa makka ñu sàmmal ma ndax man ooma fa famille sahaba yi lu bëri ci ñoom seen famille nga fa comme man nag ooma ca famille damaa ragal bu xeex amee dañuy dal seen kaw loolu rek ma ci yóbbu gis ngeen loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax yow julit ngay fagaru borom boobu subhanahu wa taala nag ne nañu xam ne yàlla dana atte seen diggante yowmal qiyaama te mooy nafiq yooyu nga xam ne mën nañoo làq yonent yàlla bi ak julit ñi mënuñoo nëbbu yàlla de yàlla ngi leen di xar yowmal qiyaama te it yàlla du def mukk yéeféer yi faagaagal julit ñi ci kaw suuf te loolu yonent bi alei salaam moo ko ñaan yàlla yàlla yàlla boo sama xeet bi yàlla bu ñu dem mukk ba yéeféer yi not leen faagaagal leen ci kaw suuf yàlla boo leen boole mbugal bu leen faagaagal ci kaw suuf bokk na lu ñuy wax ñu ne benn américain boo xam ne dafa tuuboon bi mu tuubee dugg ci l'islam gars yi laaj ko lu tax nga tuub mu ne dara taxul ma tuub lu dul xam ñaata la investissement la occidentaux yi di def di fay l'islam depuis presque une un siècle ñi ngi xeex l'islam li contraire lañ bëgg contraire mooy am ñi ngi xeex l'islam l'islam di continuer ca laa gëstoo na xam ni lii ci yàlla rek la jógee ndax bu doonte ne ay nit ko def kon l'islam fayoon na ci kaw suuf mais li ñu koy xeex lépp teew fuñ ko xeex islam gën a gën a continuer loolee mbokk ñaata ñoo tuub ci américain par par an yow xale boo deloo dugal internet ñaata ñoo tuub en France ñi gën a bañ l'islam ci kaw suuf demal boo duggee nga xool ñaata français de souche laa wax doo xam ne français lañu seen maam français la seen maamette français la ñu tuub dugg ci l'islam kon yàlla du defal yéeféer yi ñuy am ak noteel julit ñi mukk loolu it day wane ne mbokk jigéenu jànqub julit bu tuubee dugg ci l'islam suñu koy maye du bàyyi yéeféeram moo koy may fokk ay julit ñooy bokk ak moom wala ñu seet julit ñi ku ko may waaye yéeféer du nekk kilifa julit ni nga noonu borom bi nag ne yé naafiq yi de dañuy jéem a naxanteeg yàlla yi bu ko defee ca xamuñu ne yàlla ngi leen di nax mbokk nafiq ni muy naxe yàlla mooy day jàpp ne moom am nafiq la xam na ko gëmul waaye na ko mbir mi sikk sàkk moo ci nekk ndax xam nga nafiq moom it dafa nekk sikk sàkk fi qulubihim maradun ay shakk mi ngi noonu léeg-léeg mu ne ah mu ne diini ji dëgg la de léeg-léeg intérêt adduna fàttale ko loolu xam nga yéen a ngi fàttale ko xale xale yi jàng tuuti xam nañ koy Pascal mooy li ñuy wax naan ngëmu Pascal ñu ne Pascal benn philosophe la woon bi gaa yi nekk di werante alaxira am naag yàlla am naag nangam nangam mu ne gaa yi waa léegi nañ nañ gëm rek comme ñoom nee nañ am na nañ te dee nañ àjjana moo ñu fay xaar léegi nañ gëm rek suñu gëmee buñ demee dëgg la am nañu àjjana bu dul dëgg it comme dañu nekk poussière amuñu ren lu ñuy perte yaa ngi dégg mais loolu mbokk chàkk la yàlla bëggul gëm gu mel noonu borom bi li mu bëgg mooy yuqinu nga xam ne dañuy am yaqin pire naafiqiite bi dañ ne ah waaye nañ ànd ci julli gi rek nañ ànd ci woor gi rek fu leen yàlla dugal dugal ñu fa yàlla it ne baax na yowmal qiyaama yàlla day dekkal julit ñu ànd ak yéeféer yi gaa yi na ñu ànd ak naafiq yi naafiq ah suñu plan ba kat réussir ne yàlla bàyyi leen ñu ànd mbooloo bañ jub siraat yàlla fay leerug naafiq yi julit ñi dem bàyyi leen moom la ñuy wax suratul hadid unzuruna naqtabis min nuurikum away xaar leen ñu gaa yi ne leen ah yéen yéene fitnaaloon seen bopp tarabbastum wartabtum wa galatkumul amani gis ngeen loolu la leen yàlla di naxee bokk na leen yàlla di naxee di yokk seen alal yokk seen i doom bañ jàpp ne ñoom li ñu nekk muy dëgg loolu moo tax attention yow sama ndawal julit dañ ko fexe woon dem wal barki dem ndaw julit ñu bari xam nañ ne franc-maçonnerie baaxul ak kéeféer la waaye dañu naan garawul dañuy naxante ak yàlla dem dugg dans la franc-maçonnerie ñu ubbil leen lu nekk donte ne franc-maçonnerie balaa ab balaa laa accepté da nga reconnaître ne diine yi am ci kaw suuf yépp du dara lu diine bañ daan la ko defloo bu dee julita daañ la sawloo ci ay alquran daañ bu dee daañ la sant nga nekk góor jigéen ñu boole ak ay góor ñu ànd ak yow pour ñu initier la ci seen seen grade yooyu nga xam ne dem na ba 33 degré fu ne daañ la fa jaarale bam nga prouver ni ñoom seen xalaat mooy xalaat mais diine du xalaat ndaw ñu bari nag dañuy dem dugg ca jàpp na garaawul naa ci naa am intérêt rek waaye mbokk loolu jukko nafiq la képp koo xam ne sa diine def nga ko noonu jàpp nag gannaaw ba mën ngaa dem di jullee ko woor aka naxanteeg yàlla laa yàlla moo lay nax rek borom boobu nag nekk ne nee na bokk na seen mandarga xoolal naafiq bu jóg di julli da ngay gis ma nga tayel ma nga tayel yuraawnu ni naas te mbokk loolu dañ koy gis suñu jullikat yu bëri tey ñoo xam ne bu ñuy julli jóg taxaw balaa trois secondes allahu akbar allahu akbar allahu akbar pare nañ ci këpp këpp pare nañ ci boo leen gis ne nga dugg ji nga bébbali toppataw ñu sax na julli dañuy jëm ci julleem déet loolee du ñu tudd yàlla lu dul lu néew mbokk nañu xam ni yonent bi alayhi salaam benn waay julli na ci moom ñetti yoon ci kanamam mu ne ko demal julliwaat julli dañ koo war a respecté ba nga cey jëm nga xam ne yaa ngi jóg ngir dajeeg borom asamaan ak suuf yaa ngi jóg ngir dajeeg sa borom nga ànd ak toroxlu daa di quumu lillahi qanitin ni ko yàlla waxee ànd ak toroxlu ci kanamu borom bi jàng la nga xam ne mooy askar yi yàlla santaani ci alquran ci lu mu mën a doon borom boobu nag nee na yaafiq du fàttaliku yàlla lu dul lu néew li ñuy def yépp moom ne leen nit ñi gis ñi ngi julli rek mi ngi noonu nañu gis nit ñi ñu ngi julli rek li gaa yi nettali ñu ne waaje daa dugg ca jàkka ja gis am na ku toog na la ca roq ba nee na mu daal di ñëw commencé jullem gu rafet ñaari rakk yu mu dóor dóor beneen ñàkk du dóor beneen ngir waaji xam ne kii kat mi ngi rafetal julli nee na ba muy génn may ko xel ni ko toon ab xaj boofa boofu mu ne musibilah ni ko boobu nag ab xaj laa julli la yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk julit li ngay defal yàlla nit ñi gis ko ak ñu ñàkk koo gis ñoom nga yemale li ngay defal yàlla na ko nit ñi gis ak ñàkk koo gis moom nga yemale borom bi nag nee na naafiq yi boo leen dee xool faruñu fenn boo leen xoolee ci biir yéeféer ya guddi ña nga ak yéeféer ya bëccëg ña nga ak julit ña mu zabzab yéen a bay na zalik faruñu ñii faruñu ñii borom bi nag ne képp koo xam ne yàlla da koo réeral amul kenn koo xam ne ku ko mën a jubal la te it jox nañ ci misaal yu leer mooy yonent yàlla nuuxa nga ne mu réeral doomam réeral soxnaam yonent yàlla luut mu réeral soxnaam yonent yàlla ibrahim mu réeral baayam wallahi bu doon am na ko mën a jubal kenn nuux du seetaan doomam réer waay ki nga xam ne dem na ba looloo tax yowmal qiyama intervention bi mu doon ñaanal doomam ci lay tiit ba na ñi mu wuloon ñaan yàlla dara loolee kon bëggoon na mu jub bëggoon na soxnaam sa jub waaye na ko yàlla réeral kenn mënu koo jubal looloo tax ba mbokk julit booleel ñaar ci yow ak sa njaboot góor góor lool ci yoonu njub di ñaan yàlla boole la ci ñum jubal njaboot gi day leen sàmm day leen tegtal boole di ñaan yàlla di leen ñaanal yàlla yàlla jubal leen du say pexe mukk du daara jóge leen yóbbu mukk du lenn loo mën a def du tax ñu jub fii yàlla àndu ci yàlla na yàlla jubal ñu jubal suñu njaboot
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بارك الله فيكم سني بروموني يا أيها الذين آمنوا أيين نيغا خامن ديغينا غم لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين e way bu leen jàpp mukk yéeféer ya di leen def ñu ngeen di féetewoo gannaaw julit ñi aturiduuna an tajalu lillahi alaykum sultaanan mubina ama ndax da ngeen a bëgg a defal yàlla ci seen kaw lay boo xam ne lay bu leer lay doon inna almunafiqina fi darki al asfali min annar naafiq yi day ca kal ba gën a suufe ci sawara ci la ñu nekk place ba fa gën a suufe walan tajida lahum nasira te doo leen amul mukk ku leen di dimbali illa allazina taabu lu dul ña nga xam ne nag dañoo tuub wa aslahu yewenal lañ yaqoon wa atasamu billah ñu wëlbati ko ngoy ci yàlla wa akhlasu diinahum lillah sellal seen diine dañeel yàlla fa ulaika ma almuminin ñooñu day dañ ànd ak ñëgëm wa sawfa yu'ti llahu almuminina ajran azima xel se naa jox yàlla ñëgëm pay boo xam ne pay bu màgg la ma yafalu llahu bi azabikum ma yàlla lu muy def di doye seen ak mbugal in shakartum wa amantum su dee da ngeen na sant ba pare doon aji gëm wa kana allahu shakiran alima ci sa borom yàlla day mooy aji sant ka te it xam kan moo yeeyoo sant googee muy alima ki xam lépp mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi woowaat ci ya ayuha allazina amanu nga xam ni mooy kaddu goo xamee ni nii fu ko borom bi waxe déglul bu baax la nga xam ne moom mooy ñëw ca gannaaw ba imma mu doon luy dëgëral sa ngëm boo ko sàggane it day yàq la nga xamee ne mooy sa ngëm bo waaw borom boobu kon mu ne e yéen ñi nga xam ne kon da ngeen a gëm ngalla waay bu leen jël yéeféer di ko def féete bàyyi seen mbokki julit ca loolu mbokk julit dañuy gis ni borom bi jalla wa ala la nga xam ne mooy ak péete nga xam ne koo xam ne nii moom mooy sëg ndimbal koo xam ne nii lu mu nekk nga ànd ca ak moom bokk julit du ko def lu dul moroomi julitam képp koo xamee ne nii da ngaa gis ne yéeféer la bu noonoo ak l'islam la ngeen mën a siq mooy liggéeyu àdduna wala yu deme noonu waaye def ko xarit def ko koo xam ne mooy xam sa biir xam sa biti julit du jëf lente loolu ak yéeféer mu ne waaw ndax da ngeen a bëgg yàlla subhanahu wa taala am ci yéen pexe boo xam ne nii ca la leen di mbugali te na am mbokk julita képp koo xamee ne nii yaa ngi dem di jaxasoog yéefir yi di am xabaar yoo xam ne nii rawatina day jóge ci jullit yi ñu leen koy wax xamal ne ko mel noonu day yaak yàlla am ngeen yàlla am na ci yow lay bu rëy te loolu rawatina li ñuy tudde ay espion yaakaar naa yéen ndaw ñi xam da ngay gis Palestine léegi la ñu gis seen mbokku arab ñu ñuy jàpp bu ñu leen jàppee rey leen bu ñu paree dañ leen di pendre ci ay gris yéege leen ci kaw ñëpp di leen gis lu waral loolu mooy ay ndawi arab lañ yoo xam ne ñoom ñooy xam mujahidin yi xam seen kër yépp ñooy roccee ko di ko wax juif yi moo tax bépp jeune arabe bu bokk ci seen attentat yooyu juif yi xam nañ sa kër dem taal ko espion yooyu nag heure buñ ci jàppee kenn moom da ngay gis noonu la ñuy jëflante ak ñoom te loolu mooy lu gën a bon mooy jullit dem di laqatu di collaborer ak ay noonu l'islam borom bi ni xam leen ne yowmal qiyama ñëg fa gën a suufe ca sawara fal yàlla dugal nafiq yi te mbokk sawara suñu borom nee na laha sabatu abwaab juróom ñaari bunt yoo xamee ni nii fa la yàlla di dugal nit ñi ku nekk ak fa nga yeyoo duggee ci yéeféer yi amaana fiq yi ñoom bunt ba ñoo haawiya nga xam ni moo gën a suufe fa la leen yàlla di dugal ñoom ak njabootu firawn moom la borom bi di wax naan addixilu ala firawna ashadd al azab fa gën a tar te safaraa ngi noonu fu gën a suufe moo gën a tar àjjanaa nga ne fu gën a kawe moo gën a neex yàlla na yàlla def ko suñu wàccuwaay wala firdaws mooy moo tim àjjana yépp te moom mu ngi nekk ci centième degré ba bu dee aljana yonente bi alai salam nee na juróom ñetti bunt la juróom ñetti bunt la donte ne ni wax nañu ñu yomb yuy tax ñu mën a ñu mën ñu ubbil juróom ñetti bunt yépp daana wax ne ki nga xam ne dafa jàpp sellal njàppam bi mu paree mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nee na yowmal qiyaama juróom ñetti buntu àjjana yëpp daañ ko ko ubbil na ko fu la fi neex duggee loolu mooy lan mooy loolu mu wax du ko dundoon te deful safaan bu ko yàq seedane na yàlla rek la ñu war a jaam amul benn bokkaale ca maadaama seedane yàlla la ñu war a jaam la chàkk kon lam man ci jaamu yàlla ga def na ko seedane nay muhammad mooy rasulullah ko amul lenn lu muy sikk sàkk ci lam indi woon loolu it lam man topp na ko te loolee kon bokk nañ ci bàyyi xel bu baax borom bi subhanahu wa taala nag ne nafiqi ñoom fa gën a suufee fa la ñu nekk te duñu am kenn ku leen fi dimbali niñ ko waxe woon sànqit dañuy ñaan yàlla musal ñu waaye julit mën na dugg sawara am na julit ñuy dugg sawara am na riwaay yi wax sax ñi ngi leen di tuddee bu ñu leen génnee ajahannimiyin mooy ña jaaroon sawara dogalugu aljanna te yonente bi alayhi salaam nee na dana am ñoo xam ne dañ leen dugal sawara sawara lakk leen ban jeex takk ba desul lu dul la nga xam ne place yiñ doon sujuuta rek la sawara dul laal mu ngi noonu te mooy jàngoon nañu ci li passé borom mu ne kullama nadijat juluduhum mooy sawara boobu seen yaram la lay lakk dama leen mbokk bu doon wax rek naan yasla saira dugal gëj lii dugal sawara la chàkk da lay lakk moo tax yasla boobu mën a nekk duxul comme ni muy ni muy nekk yaa néegi al xariq loo xam ne dafay ñëw di lakk su ko defee der ba lay lakk borom mu ne heure bu der bi changé ñu changé beneen waaye bu dee der bi lakk nañu ko yàlla subhanahu wa taala dana suturaal place yi mu doon sujoote juróom ñaari cër yi mu doon sujoote mooy jébi ñaari loxo yi ñaari oom yi ñaari tànk yi loolu sa war yu du ko lakk malaaka yi buñ leen di génn loolu lañ leen di xàmmee waaw gaa yi ku dawul julli moom nu muy def moom ah non dafa dafa faible ku dawul julli moom dañuy xool lan mooy nekk mbiram kon ca mooy negam waajee moom da doon julli waaye nag sagganoon ba yàlla dugal ko sawar waaye falilahi alhamdu julli googee musal na ko ba mu génn loolu moo tax ba suñu borom jalla wa ala bokk na loo xam ne jullit war na ko bàyyi xel mooy nga la way julli bu kenn dox sa diggante nga julli mi ngi noonu lu la waaye di sant na la ko sant gannaaw ba nga julli waaye kay def lii bàyyil julli ci def lii da nga dem àjjana nga la way bu loo ko kenn nangul bu ko nangul kenn ci jaamu yàlla yi borom boobu nag subhanahu wa taala kon nee na nafiq moom kenn du ko dimbali ca mu ne nag xanaa lu dul ña nga xam ne dañoo tuub ca mbokku bakkaar yu garaaw yi fokk nga tuub ko yàlla dog la koo baal lii di shirk lii di kufru lii di nifaq fokk da ngay tuub yàlla baal la ko amma nag bu dee yeneen yi yàlla mën na la ko baal fekk sax tuubuloo ko gannaaw ba ñu tuubee it ñu yéwénal la nga xam ne defoon nañ ko ci ak yàq ñu daal di wëlbatiku daal di wax la nga xam ne mooy yéwénal loolu te loolu bokk na ci masalan gaa yi jàpp ne yàlla jox na leen ay cër ba képp ku leen gis texe képp ku leen jaayanteeg ñoom texe réeral doomu aadama yi nañ koy déggee suñu rajo ak télévision yi képp ku ci tuub war ngaa taxaw ne hey bis sàngam day maa leen waxoon ne sama maam yàlla defal na ko nangam ak nangam maa ngi leen di seedal ne dama doon kàcc la ma doon wax amul de intérêt adduna taxoon xam leen ne loolu dara amu ci ay foo mas a réerale nit ñi nga taxaw fa xamal leen ne loolu da ngaa juumoon loolu du dëgg gannaaw bi borom bi mu ne wa'tasamu billah mooy ñu ngoy ci yàlla bañ koo bokkaaleeg dara doyloo yàlla ndax nafiq boo ko gisee rek dafa wóoluwul yàlla wóoluwul yàlla wóoluwul la ko yàlla dig moo tax mu dem ci ñeneen ñu dul yàlla di fa sàkku di al izza borom boobu subhanahu wa taala it nee na bu ñu paree nag ñu sellal seen diine ci yàlla tax sellal diine ji mooy lépp lu ñuy def ñu def ko ci yàlla tax waxoon nañu sànq yurauna nas dañ doon gisal nit ñi julli ga aj màkka ga jihad gañ daan def lépp dañ nafiq da ko daan def waaye yurauna nas ngir nit ñi xam ne mi ngi def amma nag bu ñu tuubee axlasu diinahum lillah ñu sellal seen diine ba lu ñuy defa ci fekk yàlla tax borom bi nag ne fa ulaika ma al muminin ñooñu de yàlla dana leen booleeg julit ñi te yàlla xërsa naa jox julit ñi pay yu màgg a màgg a màgg mooy kon suñu borom yàlla ci njéggalam ak yërmandeem ki nekkoon ci naafiq soixante-dix ans bis bu tuubee yàlla baal ko boole koog julit ñi gannaaw bi it pay ga ngeen di sakku yàlla mu ne moom pay gu rëy mi ngi koy jagleel ña nga xam ne dañoo gëm bokk na it lu borom xam-xam yi di wax ma yonent bi alayhi salatu wasalaam avant muy faatu presque naafiq amatul madina naafiq yépp tuub nañu ndax yàlla jox na l'islam doole yéefar yañ daan dem di làqu ci ñoom di am lu ñuy sàkku ci ñoom loolee amatul daanaka diin doole l'islam moo fi des moo taxoon daanaka mën nañu wax ne naafiq ya la ca ëppoon ca ñoom tuub nañu dugg ci biir lislaam mi ngi noonu borom boobu it subhanahu wa taala ne mooy yéen nit ñi lan la yàlla doyee seen mbugal boo ko yàlla bëggul mbugal jaam yi déedéet li muy tëkkoo lépp ci jaam yi bëgg ko lan la yàlla doy leen mbugal su dee ne yéen sant ngeen yàlla gëm yàlla yàlla du fekk mukk jaam bu ko gëm jaam bu koy sant ba pare mu koy mbugal su ko defee ngallaway garanti bi nga xam ne nii am ngeen ko ngir mucc ci mbugalum yàlla mooy gëm yàlla te sant yàlla nu ñuy sante yàlla ni ñuy sante yàlla mooy def ay digalam bàyyi ay tereem delloo ko ay xéewalam mooy lum la xéewal nga delloo ko fa ko neex nii rek la ñuy sante yàlla loolu nag yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon na kii di Muaz ibnu Jabal ne ko dama la bëgg lool foo jullee ba pare da ngay wax allahumma a inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadatik e yàlla yal nag ma jàppale ba ma lay fàttali ko fu ma mën a toll yal nag ma jàppale ba ma sant la te mooy loo def ci man ci xéewal ma delloo la ko gannaaw ba ma yégée ne yaa ko def yal nag ma jàppale ba ma jaamu la jaamu gu sell nga la waay loolu bu leen ko fàtte fu ngeen jullee wax leen ko ci njaagoog portugais lu ngeen dégg ci langue wax leen ko soo ko mënoon wax ci arab ba nag moo gën yàlla yàlla nag ma jàppale ba ma lay fàttaliku yàlla nag ma jàppale ba ma lay sant yàlla nag ma jàppale ba ma jaamu la jaamu gu sell borom boobu nag mu ne mooy shakir shakirin alima fii yaa ngi koy sant mu lay dolli lim la jox moo ko moom moo la ko jagleel waaye fii yaa ngi koy sant mu lay dolli loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ak sant ga lu mën a doon mi ngi noonu jalla wa ala
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله
barakallahu fikum suñu borom mu ne la yuhibbu allahu aljahra bisu yàlla day bëggul kenn kuy kaweel ci ñaawteef min alqawli ci ay wax illa man zulim lu dul koo xam ne dañ koo tooñ wa kaana allahu samian alima yàlla day nekk na di aji dégg lépp di aji xam lépp in tubdu xayran aw tuxfuuhu heure boo xamee ni nii da ngeen a feeñal yiw wala ngeen nëbb yiw wi aw taafu an suu wala ngeen jéggale ci ñaawtiif fa inna allaha kaana afuwan qadira sa borom yàlla nekk na kuy jéggale waaye nekk na ko am kattanit inna lazina yakfuruuna billahi wa rusuli ña nga xam ne dañuy weddi yàlla ak yonenti yàlla day wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli ñuy bëgg a teqale diggante yàlla ak yonentam wa yaquluuna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd ñu naan ñun de gëm nañ lenn ca ñoom weddi nañ lenn ca ña ca des wa yuriduna an yattaxizu bayna zalika sabila di bëgg di jël ci diggante loolee aw yoon ulaika humul kafiruna haqqan ñooñu day ñuy yéeféer ya dëgg-dëgg وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا دونت نيغي واجال يفري مبغل مولين دي تoroxal والذين آمنوا بالله ورسله ñinga xamne nak dañoo gëm yalla gëm ay yenentam walam yufarriqu bayna ahadin minhum te teqale wuñu digante kenn ci ñoom ulaika sawfa yu'tihim ujurahum ñooñu day xelsa na leen jox la nga xam ne mooy seen payya wa kana allahu ghafuran rahima te yàlla day nekk na aju koy jéggalaate aju koy yërëmaate mi ngi noonu mbokk suñu boroom day moo ñu bind nee na moo ñu may lammiñ may ñu ay tuñ wa lisaanan wa shafatayn li ñuy waxe moo ko moom mu ne nag bëgguma kuy kaweel wax ju bon bépp wax ju bon yow julit bu ko wax nga la way julit bàyyil xel ni de par le monde ay millions muuma ñoo ci nekk ay millions muuma ñoo xam ne nii ndeysaan rek la ñu am soxla duñu xam nuñ koy waxee gis ngeen loolee ñu bàyyi ci xel bu baax di kawtiif yow yàlla may la nga mën a wax da ngay gis muuma baa ngi nii moom sax am na tuñ am na ay ay ay lamiñ mais mënta wax kon leneen yeneen xéewal ñoo ci daje sa corde vocale yeeg yépp borom bi nag mu ni ngal la way bul wax wax ju bon loola tax mbokk yàlla bëggul wax ju bon tey jii yàq naa boo laajoon ñoom bilal caam ñi jaroo ci àll bi sooy dox ba dégg saaga maa ngi mag ñi lu ñu daan def dañuy faxas seen nopp ni tuub naag dégg loolu lañ doon wax seen njaboot boo déggee ko saaga faxasal sooy def ni tuub naag dégg xale bi nga xam ne da nga koo formé ci ne boo déggee saaga sax ni tuub naa ndax moom dana saaga looloo tax mbokk saaga ni ko nit ñi tey wooye fale nit ñu jëkk ne dañ koo màggaloon lool ndax dañoo xam ni yàlla bëggul kuy wax lu bon ah ñoom sëriñ daara ñoom cheikh ousmane bu ma sànn xale bu leen merloo tey de bu ma la jàppee dinaa la ngalaab bu ma la jàppee dinaa toj sa lu bon waaye dagg saaga daw ñu ko def xam nañ ne ah waaw waaw tey su ma la jàppee fudd sa dégg waaye waaye aw saaga moom daawuñu ko wax ndax xam nañu julit du saaga waaw léegi nag liñ leen waxal fii barki démb nag yonente bi alayhi salaam ne yàlla rëbb na kuy saaga ay waajuram sahaba yi na ko ah saaga sa waajur mu ne mu ne waaw da ngay saaga waajuru keneen moom mu fayu kon mel na nga ko saaga sa waajur waaye sahaba yi ñu ngi posé question saaga sa waajur loolu mbokk ndax tey gisul leen koy saaga waajuram ah kay jàkkaarloog sa waajur daggal ko saaga ngi noonu su benn mbokk Hassan Ben Sar ngi nekkoon Amérique am na yàlla sàmm ko nee na dañu romb xuma fan ci quartier Dakar benn jànq mi ngi poñe benn maire di ko daggal saagoy ndey nit ñaa ko yow kii sa moromu yaay nga koy saaga am ñu toogal fu ne yaayam la de biñ ko waxee bi yaayam la de mu ne laaj laaj leen ko lu mu doon def yaayam ah kon ñun suñu yoon nekkatu ci laaj leen ko lu mu doon def yaayam gis ngeen loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yàlla bëggul wax ju bon lu dul nakku ñu tooñ illa man zulima su dee ne dañ laa tooñ waa ji ñëw taxaw ci moo la tooñ daggal la saaga ndey bu la neexee saago ko ndey ñaari baakaar yépp moom lañ koy bindal waa ji nga xam ne dalaa tooñ nga dem ci attekat bi wala koo xam ne jàpp nga ne mën na ci dara nettali ko na ko diwdee moom ma def nangam moom ma def nangam mbokk ku ñu tooñ moom yàlla terewu ko mu wax lu bon ca kaka tooñ moo tax borom xam-xam yi dañ doon wax ay waay aaya bii day mu nekkoon illa man zalama lu dul ko tooñ moo leen gënaloon un milliard mbokk aaya bi bu doon yàlla dane yàlla bëggul ñuy wax lu bon lu dul ci ki tooñ kon képp ko tooñ ñu am dara wax ko lu bon waaye yàlla dane ki ñi tooñ kon yow waaju tooñu la amoo droit di wax ay mbiram ca mbokk loolu mooy jaamu yàlla gi ma jàpp man mooy gi gën a jafe gi ñu yàlla teg mooy bàyyi jëw ndax jëw mooy lan yonente wala sax mu ne saxaba yi ndax xam ngeen luy jëw ñu ne ko ah yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne mooy ngay waxal sa mbokk julit loo xam ne bu fi nekkoon du ko neex ñu ne ko mais bu dee li ñu wax dëgg la nag mu ne waaw bu dee li ngeen di wax dëgg la yéen a ngi koy jëw bu dee du dëgg nag yéen a ngi koy dooral kon mbokk jëw dafa jafee mucc gis ngeen yal na yàlla musal ñu ci ci jéggal ñu kon illa man zulima am naa ku ñu tooñ moom la ngay dem di porte plainte wala di fayu loolu moom yàlla du la ko toppee borom bi nag mu ne xam leen ne may dégg lépp te may xam lépp te it mbokk xam leen ni suñu borom yàlla la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lépp looy wax yàlla nga koy dégg julit moo tax ngay julli jël sa jëbi dóor ci kaw ci suuf naan subhana rabbil ala xam nga ni yàlla ngi lay dégg naka noonu it wax ju bon ji ngay wax yàlla ngi koy dégg loolu moo tax ba jullit dafa war a góorgóorlu di rus yàlla te ji da ngay gis ab caamin boo jàkkaarloog nit naan ko def waaye rus naa diw sax su ma rusul woon diw am déet yàgg leen ko gisawaay kookee mu rus moo tax ba waxul lu bon yàlla gën a yee ñu rus ko suñu borom mu ne inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla mi ngi leen di fëglu borom bi nag ni su ngeen feeñalee lu baax na doon wax ju baax la jëf ju baax la ngeen feeñal ko wala ngeen nëbbu jëf ju ba- baax jooje wala ngeen jéggale suñu borom yàlla kuy jéggale la ca ko am kàttan la mbokk lu baax ngi noonu nga feeñal ko baax na ab sadax la nga feeñal ko baax na nga nëbb ko baax na ban moo ci gën bu dee ne feeñal ga am na ñu la cay roy su boobaa feeñal gaa gën su dee ne nag yow da nga koo bëgg a def rek ngir sa digganteeg ka nga koy defal ci faqir ak miskin yi nëbb ga mooy la gën in tuxfuha wa tu'tu al fuqara fa huwa xayrun lakum gannaaw bi ci la tooñ suñu borom nee na am nga droit fayu illa man zulim waa ji wax na lu bon am nga droit wax ko lu bon waaye mu ne bu dee ne yow da ngaa jéggale bañ a wax lu bon loolee xam leen ne suñu borom yàlla moom kuy jéggale la moom it ca ko am kattan la ci mën a fayu kon it yow mi am kattan mën a fayu nga bale ci yàlla tax lu mel noonu bàyyil xel njéggalug yàlla te yonent bi alayhi salaam nee na yàlla du jégga du dolli ab jaam min affin illa izza bépp jaam bu ñu tooñ nga mënoon a fayu nga bale ci yàlla tax teddaa nga rek la la ci yàlla di yokk looloo tax keroog Abu Bakr Siddiq ba mu déggee jarbaatam ba ñu wax Mistah bokkoon na ci ñu doon siiwal naan Aïcha dafa njaaloo ba yàlla wàcce ay aaya laabal suñu ay Aïcha dañuy kii sama dërëm dootu ko lekk suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne déedéet borom mbaax yi bu ñu waat ne dootuñu def lu baax fal yaafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum jéggale leen xanaa bëgg leen yàlla jéggal leen abubakar ne ah kay jéggal naa ko te lu ma ko doon defal danaa ko doublé ñu ngi noonu sahabatul kiram noonu lañ ma doon ak téere bi yàlla bi kon it mi ngi noonu képp ku la def lu bon wala mu wax lu bon am nga droit fayu fayu gu yemeeg ngam la def amoo droit jéggi dayoo nag waaye am nga droit fayu amma boo ko baalee ca yàlla tax rawatina nga baal ko ci kattan mënoon ngaa fayu waaye nga baal ko ci ci ngir yàlla yàlla moo gàddu sa fay borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ak yonentam bëgg a teqali yàlla ak ay yonentam ne gëm nañ ñii weddi nañ ñii bëgg a jël ci diggante ba aw yoon te waxoon nañ ko lu mel noonu démb mooy xëy di jiitu islam yépp dañoo teqale yonent yàlla yi soo demoon ci yahudi nee nañ isa doomi njaaloo la taala allahu ama yaquluun mi ngi noonu loolu insha allah dañ ko jàng suba wa qawlihim ala maryam buhtaanan azima mooy duural nañu maryama dafa indi doomi njaaloo bu dee ni nga dem ci yeneen nasaraan yi ñoom it am na ci yenn yonent yoo xam ne ni gëmuñu ko ñii nee nañ gëmuñu Suleymaan ñii gëmuñu nangam nangam ala kulli xaal suñu borom moom nee na dañoo bëgg a teqale yonent yàlla yi am naa julit julit moom mooy ka nga xam ne nii moom du teqale diggante yonent yàlla yi am maa ki teqale diggante yàlla yi bëgg am fu mu féete bëgg am nu mu bàyyi suñu borom mu ne ñoom ñooy yéeféer dëgg-dëgg képp ku weddi benn yonent yéeféer la moo tax bu ne kazzaba qawmu nuuhin bi bi rusul te noonu la ko yàlla waxee de mi ngi noonu xeetu noo weddi nañ yonent yee mboola seen te benn yonent lañ dajeel waaye maadaama dañoo weddi nuux rek weddi nañ yonent yee mboola seen suñu borom mu ne mi ngi leen di waajal mbugal mu tar borom bi nag dellu si ci jurit ñi mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mbokk du ñuy gëme yàlla gëm ne moom rek moom moom gëm mooy borom melokaan yi rafet yi ak borom tur yi sell ya gëm ne innahu ala kulli shay'in qadir gëm ne mooy arrahman arrahim borom tur yu màgg ya gëm ne moom nga war a jaamu waroo ko bokkaale dara waaye gëm ay yonentam ne ñooy tànni fi yàlla ci ay jaamam yàlla tànn leen yónni leen ah ñuy benn liste boo xamee ni nii koo ca weddi weddi nga yépp koo ca yokk yokk nga yépp Sénégal xaw ma ñaata yonent lañ lañ yokk lu mbon mbon ci gën a cinq yonent xanaa dañu yokk yokk yokk ci liste borom bi jalla waala waaye ka ca wàññi benn ak ka ca yokk benn ñoo yem ñoom ñu ne teqale wuñu kenn ci yenent yi ay teqale wuñu ne ci yàlla lañ jóge ca lañ doon wax dëgg la amma bu dee jëf nag suñu borom mu ne wali kullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja mboolem yenent am na sharia bu ko yàlla tegoon waaye bu dee cosaan bi moom nga gëm ne ci yàlla lañ jóge lañ wax mu doon dëgg amma bu dee pratique bi moom doo topp lu dul yonent ba yàlla dëppale nga nga tombe ak moom loolu tax ñun julit ba ila yawmi diin amul kenn kuy ñëw gannaaw yonent yàlla muhammad lu dul yàlla du la nangul lu dul la mu yónni woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee nañu mel nii day yàlla mu ne dana leen jox seeni pay gis nga borom bi ci mbaaxam mu ne seeni pay ngiri waa ajjana ñu xam ni lii ñoom ñoo ko liggéeyoon ndax doomu aadama bi xéewal bi nga xam ne yaa ko ñaq liggéey ko bokkul ak lu ñu la woo rek may la wala ñu invité la ca mi ngi noonu gannaaw bi it ñeneen ñu dul ñoom xam maa du teg yàlla lu tax ñii mu jagle leen yóbbu leen àjjana suñu borom mu ne dañoo liggéeyoon ma fay leen waaye du rek ci sama xam-xam laa leen attee donte ne yàlla bu ko neexoon bind ay jaamam atte leen ci xam-xamam xam ne ñi ñoo ci baax yóbbu àjjana ñi ñoo ci bon yóbbu sawara waaye yàlla du def loolu da leen a napp ñoom ñëpp na leen digal yaa ngi nii ñii jëfe yàlla am ci lay yóbbu àjjana ñii lànk yàlla am lay ngir mbugal leen borom boobu nag subhanahu wa taala ni yàlla nag mooy xafuur ca bàkkaar yi doon def ba musal leen ci sawara rahim moo leen di yërëm ba tabbaleen àjjana yàlla na yàlla jéggal ñu ca yërëm ñu
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرا فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا jazakum allahu xayra suñu borom jalla waala mu ne yasaluko ahlul kitab mi ngi lay laaj ñi jotoon téere an tunazzila alayhim kitaban min assama ci nga wàcce ci ñoom téere buy bawoo ca asamaan faqad saalu musa akbara min zalik ñoom de waay laajoon nañ musa lu gën a màgg lii lépp faqaalu arina allaha jahra ñu ne muusa wan ñu yàlla mu feeñ ñu gis ko way fa axazathum saaiqatu bi zulmihim noonu la leen jàppee yuux ga leen alag ca tooñ ya ñu tooñoon summa taqazu lijla min baadi ma jaathum albayinat gannaaw ba ñu jël sëll wa gannaaw ba mu leen dikkalee lay yu leer ya fa afawna an zalik ñu daal di jéggale loolee wa atayna musa sultaanan mubina ñu daal di jox musa la nga xam ne mooy lay wu leer wa lay lay wu leer wa wa rafa'na fawqahum tuura bi mithaqihim ñu daal di yëkkati ci seen kaw lii di montagne ba ca kóllëre gan jàppoon ak ñoom wa qulna lahum udkhulul baaba sujjada gannaaw ba ñu ne leen dem leen dugg ca bunt ba ngeen doon aji sujud wa qulna lahum la ta'du fi sabt ñu wax leen ba tey ne bu leen jigi dayoo ca samedi ji wa axasna minhum mithaqan ghalisa ñu jàpp ci ñoom kolere goo xam ne nii kolere gu dëgër la mi ngi noonu mbokku bokkoon na yahud yi bon yi lu ñu daan layee ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ah yow nee nga ab yonent nga wàcceel ab téere bu jóge asamaan ñoo xam ne yàlla la yónni ndax moo ko xam ngeen ne tawraat yàlla ko bind ci loxoom muy ay alluwa mu jox ko Musa alayhi salatu wassalam kon wàcceel téere mu jóge ko asamaan liñ ciy jëkk a wax mooy niñ ko jànge woon démb suñu borom tawraat da ko wàcce benn yoon alquran bi nar a nekk téere universel pour àdduna yépp mu tàggat ci sahabatul kiram wàcce ko ci diiru vingt trois ans gis ngeen loolu nekk gën a nekk xéewal borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñoom nee na ñooy da ngay wàcce téere pour ñu gëm la moo ne day laajoon nañ Moussa lu gën a màgg liñ lay laaj ca taxul woon ñu gëm bokk na ci loolee yonent yàlla Moussa yàlla da koo jox la nga xam ne mooy rendez-vous moom ñaar dajee ca tuuru Sina fa yàlla doon déyoo ak moom Moussa jan tànn ci ñoom soixante-dix kilifa ñu ànd bi ñu demee Moussa bàyyi leen dem ci montagne bi gannaaw ba ñu dégg borom bi jàll wa ala di wax ak yàlla di wax ak Moussa ñu dégg kàddug yàlla ñu ngi noonu borom bi ne afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalam allah ñu ngi dégg kàddug yàlla gi yàlla jox Moussa ay digalam bi Moussa wàccaatee ah Moussa dégg nañ kàddu de waaye bala ñoo xam ne yàlla nga doon waxal woon ñu yàlla ñu gis ko directement gis ngeen arina allah jahrata fañ ko waxee rek suñu borom indi benn foudre mooy benn dënu boo xam ne nii daf leen a rey ñoom ñëpp mboole seen ca loolu mooy kattanu yàlla xam ngeen ni yowmal qiyaama bu ñëwee suñu borom waxee israfil ëffal ci béjjeen ba mu ko jox nufiqa fi suur fa sayiqa man fi samawati man fi l ard illa man sha allah benn ëff yuuxu boobu muy àndal dana rey mboolem malaaka yi nekkoon ci kaw asamaan rey mboolem nit ak jinneeg bàyyi muy nekkoon ci kaw suuf amma ñee yàlla yónni na ci ñoom benn yuux goo xam ne ñoom soixante-dix yépp a deewandoo gis ngeen borom bi subhanahu wa taala danañu nettali feneen te ne suma baasnaakum min baadi mawtikum gannaaw ba yàlla Moussa ñaan ko ay Moussa ay yàlla bu la neexoon nga alag leen avant lii fa tuhlikuna bima faala sufaha minna mi ngi doon jàngoon nañ ko ca baqara borom boobu subhanahu wa taala dekkal leen dekkal leen loolu waroon leen a tax ñu gëm waaye yahud mooy yahud borom bi nee na gannaaw ba yéen a jàppoon nag ba di ko jaamu te mooy ba leen Moussa bàyyee ca njëlbeenu jëkk dem di déeyoog boromam avant muy indi tawraat dañoo am saay-saay bu ñuy wax Samiri moo leen defaral benn nag en or ne leen kii mooy yàlla Moussa haza ilahukum ilahu Moussa yàllaa ngi dem di ko wëri te yàllaa ngi nii ñu ne ko ah wax nga dëgg ko yàllaa ngi nii commencé wër wër ko di ko feccal ak di ko di ko tëggal gis ngeen borom bi subhanahu wa taala nee na gannaaw ba ma jéggal leen loolu donte ne jéggal ga yombewul woon noonu de naa leen yàlla jéggale inna lazina taqasul ijla sayanaaluhum ghadabun min rabbihim wa zilla fi lxayaati dunya yàlla da leen a mere daa dina Moussa inna allaha ya'murukum an taqtulu anfusakum xam nu ko yàlla di waxee te encore ci baqara fokk ngeen rey seen seen bakk ah ñu ngi noonu da ngeen ah waaw uqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum borom bi subhanahu wa taala ni Moussa wax leen ni suñu bëggee ma nangu leen seen tuub nañ reyante ci seen biir yàlla wàcce ak lëndëm lëndëm gi yiir leen kenn gisul kenn ñu ne ayca ku nekk di cor fu nekk koo dend rek cor cor cor pour sauver sa bopp di cor Moussa ak Haarun ni di ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla na doy na bañ demee lu ay junni ci ñoom dee nañ ci mi ngi noonu ñooñu dee yàlla considère dafa shahid yóbbu leen àjjana ne ca des yàlla baal leen waaye ndax fa la ñu yem déedéet yàlla subhanahu wa taala jox Moussa tawraat teewul ñu continuer seen jalgate ga ak tiiñal Moussa ci lu nekk ñu wax ko ko suñu borom yëkkati tuur bi mooy montagne tuur mooy montagne bu am garab montagne bi ne diikee tiim leen ka annahu zulla comme ni mu koy waxee ca baqara tiim leen nii borom bi nag ne bis bu ngeen fi defetee ak njombe rek montagne bi ñëw daanu seen kaw lu ñu def ñoom ñëpp ñu sujjuut sujjuute seen seen catu jë di xool montagne bi ne yàlla jéggal ñu jéggal ñu jéggal ñu ba yàlla teggi montagne ba ba moo tax dañ naan yahut heure bu jàqee genn wàllu jëm lay sujjuute ndax nee nañ seen maam ya bañ ko defee ci leen yàlla xettalee gis ngeen loolu lépp ndax ci la ñu yem déedéet yàlla subhanahu wa taala ne leen léegi bis bu ngeen demee ba ma dimbali leen ba ngeen ubbi Palestine te loolu fekk na sax Moussa alayhi salatu wasalam faatu na ba 40 ans après la leen suñu borom yàlla doog a may kattan ñu ànd ak Yusuf ibn Nun ubbi Palestine mu ne su ngeen demee ubbi Palestine balaa kenn dugg ci dëkk bi na sujud daa di ne xitta su sujud wax yàlla jéggal ko waaye bañ demee lu ñu wax ñu ne a ñoom seen kattan moo ko ubbi suñ ko ñuy sujootal suñu kattan moo ko ubbi daa di changé kaddu ga gañ leen waxoon am ñu ne dañ ne xabba soxlawuñu ay ay xitta lu ñu soxla kay dañu am rek luñu lu ñu lekk loolu mbokk di be- di di benn dernière li leen yàlla di fàttali te loo xam ne seen maama ko defoon ñooñu di wax ak yonente ba ca madina mooy waxoon nañ leen bu leen jéggi dayoo ca samedi ba te mooy yàlla waxoon na ab yahud samedi bu mu ci liggéey su jant bi soo ca àjjuma comme heure bi ak jant bi sono ba ba jant bi soo ca ëllëg ab yahud amul droit liggéey dafa war a jagleel boppam jaamu yàlla bala may sori it ñu xam ne ñun yàlla teguñu loolu ñun yàlla lim ñu teg mooy à peine une heure de temps mën na ko manqué sax li yàlla araamal ci ñun ñu liggéey ko une heure de temps mooy fi imam ñëwee ba baa fi julli gi di jeexe foofu moom xaraam na jullit di fa liggéey wala muy jënd ka jaay waaye gannaaw loolu suñu borom mu ne isa nudiya ila salaa fas aw ila zikrillah wa zarul bay boo xëyee fajar del jaay del maçon del informatique del nangam yàlla dagga nan la ci doon bis bu ñu nodd gi jotee mu ne nag bàyyi lépp dem wuy ji no- julli gi pare ne isa xudiyat sala fantashiru delluwaat leen ci liggéey ba gis ngeen waaye teewul am na jullit ñuy jag jalgati loolu léeg-léeg nga dem bisu àjjuma dem ci marché yi mel ne lundi lañ nekk wala marché bokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag ne waa samedi ba tere woon na la ñu napp samedi teewul ñu napp samedi suñu borom yàlla it di wax ne gis ngeen jëloon nañ ci ñoom kóllëre goo xam ne gu dëgër la mu ñu fi yàlla dajale suba borom bi danañu wax ne mboolem lu yàlla masa fasanteeg bani israil jalgati nañ ko violé nañ ko kon yow bu bu dee ñi ngi ñëw naan la indi ayat nangam ñu gëm la ku gëmalul yàlla gëmalul ab yeneen tam xamal ne du la gëla du la gëmal mukk yal na yàlla boole ñu ci ñëkk a gëm buñ ko bokkaaleeg dara yal nañu yàlla may afiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain naam Euh, ndax euh, li nga xam ne dañ koy wax mu ne euh, imam buy jàng alaysa allahu bi qadirin ala an yuhyiya al mawta jàkk bi yëpp ànd ne ne bala loolu day borom xam-xam yi wax nañ cay wax yu bari waaye la gën a mucc ayib moo di ne xamuñu woon sahabatul kiram di defe noonu sahabatul kiram di defe noonu bu doonte ne ci loo xam ne nii beneen njàngi la bu dul ci biir julli loolee nit ki ne bala dara ne wucca waaye amma ci la nga xam ne ni mooy biir julli alaysa allahu bi ahkami alhakimin wa alay alaysa allahu bi qadirin ala an yuhyiya almawta wala laaj yu mel noonu ad jàkk bi ànd na bala loolu xamuñu ko woon ci doxalinu sahabatul kiram wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam liggéeyu courtier luñ ci mën a leeral mooy liggéey la bu dangereux bu jege bakkan lool ndax loo xam ne nii ay wax rek ngay wax mën caa gagné million dafa jege bakkan allahuma lu dul boo ko sellalee boo ko sellalee dara ne wucc mooy bu dee ne courtier gi dafa yem kii dafa am këram ne la sama kër gi dama bëgg nga jaayal ma ko ñaar moo mën a am man daal cinquante millions laa ci bëgg yow loo ci teg yaa moom wala cinquante millions laa ci bëgg léegi pourcentage sangam nga ci am nga dem xam ne da ngay am ci loolu loolu dara newu ci kii ñëw di la wërloo kër nga ne ko ah man day mën naa lijjanti kër waaye nag su boobaa su ma la lijjantee kër day da nga ma jox nangam ngeen waxante mu leer loolee loo ci am garaawul li ci nekk nag mooy lu ci bari kii da leen di jaayuloo kër gi vingt millions ñu dem ñoom ne kër gi kat trente millions lay jar léeg-léeg ñu kañuy jaayal ñu bë- jaayee ko kër gi nangam ba pare bëgg bind leneen lu dul loolu yaakaar naa suñu bilaal mii xam na ci dara bëgg ñu bind loolu leneen lu dul loolu yooyu daal mooy danger bi ci nekk mooy wor imma ka nga xam ne mooy jaay wala wor ka nga xam ne mooy jënd waaye bu dee lépp teg nga ko ci lu leer loole da ngay gis ne liggéey la comme liggéey yépp wallahu subhanahu wa taala alam naam ah naam ala ah ah ah tontine waaw tontine it même chose tontine it liñ koy wax mooy lu bari ci doomu aadama yi dañuy dugg ci tontine yoo xam ne nii munuñu ko tey ab caamen di dégg ñu tontine bu ko teggee am un million d'accord natt bi ñaata la vingt cinq mille par mois wala cinquante mille par mois est-ce que yow garanti nga ne chaque mois nga am cinquante mille su ko defee mën ngaa dem ñu teel laa teggil ba pare na nga am problème loolee la ñuy bañ ci tontine am na ci ñu bari it ci jigéen ñoo xam ne dañuy créer ay tontine tontine bi ñu créer lu mat cinquante jigéen waaye dañuy fexe ba cinquante cinq teggi tontine bi day jeex ba yàgg ñu naan ne des na ñaar des na ñett des na nangam loolee mooy danger bi waaye bu dee tontine daa yem ci kii woote tontine day xam ne yéen kaay leen ñu natt man maay dajale natt yi léegi temps lañu tontine bi bis sangam lay commencé dernier natt bis sangam la ñëpp xam ne ko dernier natt bis sangam la man mii dajale natt yi nag ah su natt yi su su ñëpp teggee da ngeen may teggil ñoom ñu nangul ko loolu islam du bañ loolu yow mi nga xam ne yaay dugg ca tontine ba it ba nga cay dugg mu leer na le engagement bii ñu jox waxtu tontine bi am naa kattanu man ko respecté su boobaa loolu day nekk sax ak jaamu yàlla ndax suñu borom mu ne taawanu alal birri wa taqwa day leen dimbalante ci njëkk ak ragal yàlla am na ñoo xam ne mënuñu denc xaalis waaye bu ñuy def weer wu ne ñu am fuñ dugal dara weer wu deew am dugal fuñ dugal dara loolee bis buñ ko teggee mën caa def départu liggéey wala mën caa def loo xam ne nii dana leen jëriñ ci seen kër loolee kon buñ ko jaaralee ci yoon daal dara newu ca wallahu subhanahu wa taala aalam waaw ah waaw ndax kii nga xam ne mën naa julli witr pare bu bëggul mu teg ci benn rakka loolu day borom xam-xam yi koy def yépp mooy ñu am problème mu ki witr ba pare du julliwaat ndax li yonente bi alayhi salaam wax day leen def seen mbujeelu julli witr waaye moo tax ñoom dañu naan soo witree ak imam ba pare su imam sëlmalee yow da ngay jóg dolli benn rakka mu nekk shafa su ko defee ngay naafiloor da la neex daal di witr beneen witr waaye mbokk nañ li ñuy wax mooy witre teewul julliwaat e waaye dellu leen ci téeru sunna yi yonente bi alayhi salaam daani witre ba pare julli ñaari rakk yoo xam ne dafay toog Cheikh Ousmane Mousso jàng loolu waay daan julli witre ba pare yaay Aïcha nee na daana julli witre ba yépp toog ba dara ba fajar ba fajar di jot mu julli ñaari rakk yoo xam ne day toog su paree sëlmal sëlmal boo xam ne dana yeewaa kër gi yépp loolee mbokk kon witre ba pare teewul a naafil dañ ne la gën mooy bu dee rek lu ñuy tànn fexe leen ba di witre avant nu mu tuddati mi ngi mel ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu naan bëgg tere dafa tere ñu ñu ñuy waxtaan gannaaw gee di jàng ngeen xadis boobee ndax yéen ñi kenn ci yéen du waxtaan gannaaw dee ah kay mais de la gën la gën mooy julit nga fexe ba yow boo defee sa programme ba pare ba julli gee demal tëdd rek ngir nga récupérer ci guddi gi waaye nekkul lu ñuy xaraamal ne wala lu ñu tere ne ki ki ki julli gee ba pare du waxtaan loolu mel noonu la ñuy wax ci witre bi su dee yaa yor sa organisation bopp nga fexe ba dernier rakk bi nekk witre mooy li gën mais bu dee dafa am lu la tënk lu mel ne xiyaamu layli yi ñuy def wala boog nga jàpp ne man xaaju guddi gi dama am jot nga def say nawaafil ci jël benn guddi gi far yàlla def nga yeewu ci xaaju guddi gi su boobaa dara nekkul nga julliwaat say julli sans nga baam waat witr bi yàlla na yàlla dëpp nañoo ngërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain